alhamdulilahi rabbil alamina euh, ñu ngi sant yàlla di sant yonent di sant président de la république di ko xamal yàlla rek moo ko mun a fay feebar bi lu ko Sambere wax rek defal lëmbal adduna bi yëpp l' am ak technique mu jël lu mu mun jox population si si population Sénégal nañ ko sant gërëm ko deuxième point bi maa ngi gërëm waa set sept ci yooyu maa ngi leen di gërëm di leen di sant xamal leen rek lii mooy dëgg bu ñu indee dara ñu ne joxal diw fexal nga jox ko li nga moomul bayil li nga nga jël ko di gërem commission gunas parce que tay, bu taxé wat ci position am commission bi la ngi leen di gërem di leen di sant bo gisee aduna deug moy wey moy lolu gisu fi chef de chef de quartier il a certains points qu'il a fait je je l'attaque dama koy attaqué attaquuma tuuram ki ma attaqué mooy chef de quartier avec le maire avec population Sibassor ñoo ko attaqué donc je refuse ce qu'il a fait loolu du ci dugg parce que yoon dina def liggéeyam moy waa Sibassor jógee ci maire dem ci keneen fexeel ngeen xam ay citoyen ngeen kenn génnul kenn maire bu jiitoo di woone di def def leen ko falé ci géej gi chef de quartier yalla def la jox benn mbir bu tuuti rek ñu ne da ngay dem and ak commission nga choisir commission tok choisir lolu be pare nga jël lolu nga ne du deug nga jël sa balanko jël juromi domi adam nga genné ci miskin yoy nga ne da ngay dox say miskin population du ñu nangu le maire du nangu loolu dama koy xex jusqu'au bout

waaw ndey bu amuloon it boo bëggee dem tool bëgg a liggéeyanti looloo indi ay tool yu boo yeeg yooyu mais heure bi mu ñëw dina permettre nit ñi mën a toppatoo seen tool béy bu rafet bu ko defee production bi bëri koom-koom bi ëpp ci réew mi heure bi daal baax na ñu ngi remercier président de la république de remercier le maire bi nga xam ne clairvoyance dëgg la fi def lu leer nañ ay commission la ko def commission ñoo tànnal seen bopp jël nit ñi nga xam ne ay ayant droit lañ ñi nga xam ne neew nañ doole jox ko amul benn coow amul dara kon ñu ngi ko ci remercier parce que ñu ngi dégg ci rajo ay fu nekk am na coow mais fii dara amu fi parce que daf ko bàyyee seen nit ñi ñoo tànnal seen bopp di dëkk boo dem xam nañ ña new néew doole ak yooyu loola lañ ñu bàyyee ñu seet ñu néew doole ñu jox leen ko moo tax benn problème amu ko kon ñu ngi remercier le maire de bii ñu toogat nii de c'est pas évident bu ko neexoon mën a defee neneen am na ñoo dañ ko ay politique waaye moom ñëpp la boole ëmb ku ànd ak moom ak ku àndul ku bokk ku bokkul na nga yeewoo si Sibassor rek seetatul xaj ak seen bam fi ne daal la ne léegi nag maa élif ñëpp loolu lay woon ne bu tey moo tax fii du nga fi dégg benn contestation loolu daal lañ amoon lu ñuy wax maa ngi bokk ci Gunaas wax dëgg yàlla ñoom bi ñuy recruter jël nañ sama carte d'identité ak sama numéro téléphone mais démb damaa ñëw jël si fii ma fekk si ñoom awa yi ñu xoolal ma ñu ne sama tur nekk fii ma jóge fii ma dem ci sama kër délégué quartier fekkuma ko fa doomam laa fa fekk man ne ko man dama demoon fee ñu ne sama tur nekku fa mu ne ma ah kay tata maa la bind sa tur jëkkër laa bind ak sa numéro carte d'identité ak numéro téléphone ma ñëw fii ne leen awasi bii ma ne ko man dem naa kër chef de quartier fe dama fekk muy nelaw mais doomam nee na bind na ma sama turu jëkkër la dugal ak sama numéro téléphone ak sama numéro carte d'identité ñu ne ma sa jëkkër nu mu tudd ma ne leen Demba Sène ñu xol gisunu ko legi man man awasi li nak luma jaaxal la mané parce man jabort la man sama jëkkër dafa gañu bàyyi mak juróom-ñaari bant té kenn mënul dal ay élève lañ man ma leen yor kon nak nan la mëna def ba mënuma nan la mëna def pour am ci ki ci dund bi après awa mënima ma jox ma sa carte d'identité bu suba monsieur le maire bu ñëwé ma waxtaan ak mom légui lool moma andi bi ma toogee fee aussi. bok ci awa ñëw damay mm, berlen li sama mère sant ko gërëm ko te moom xam nañ na xam naa ne askan bi la fi nekkal waaw xajul seenul dafa ubbi portam ku ñëw rek bokk nga soo ñëwul sax mu wëri la sant nañ ko gërëm nañ ko lii nag dafa ñëw si heure am dafa ñëw ci heure am parce que fu mu toll nii góor ñi dañuy béy jigéen ñi dañuy béy te soo biir yi su feesee rek yow loo bëggoon liggéey da ko liggéey sakantuma élèves yi ndax fu mu toll nii élèves yaa ngi war a dem jàngi te fu mu toll nii dañ ne biir bu deful dara doo mun a jàng te fu mu toll nii xale yi képp ku si yeewu sa biir dina fees soo wàccee sa biir dina fees parce que ñëw na heure kon ñu ngi sant di gërëm sant nañ di gërëm bu baax a baax a baax ñu sant suñu maire. Sambare Fay nekk conseil municipal ci commune bu Sibassor euh, di am mbégte tey ci teewaay bi nga xam ne tey taxawee nañ ko di remercier it euh, sama président bi nga xam ne. moom mooy Bachir Mbodj wax ji wax rek dajal na lépp kon ñu ngi gërëm également monsieur le maire di gërëm population Sibassor parce que ñoom ñëpp ànd nañ ak dal ak tey ba kenn ku ci ne ki nga xam ne moo ko yelloo rek xam nañ ne jox nañ ko ko te kon tey li ñuy wax mooy saluer population bi waaye dama di saluer le maire parce que commission bi vraiment commission yu dynamique la ñu am pas-pas lañ ñu xam ñi ñu war a tànn lañ te tànn nañ ko ni ñu ko war a tànnee tànn nag yombul. kon bu ñu tànnee ba mu rafetee nii kon dañu ne alhamdulilah rabbil alamin di gërëm également monsieur le président Macky Sall parce que vraiment def na li nga xam ne moom mooy waree wareefam mooy jàppale ki néew doole tette ko pour mu jëm ci kanam bi mu ko defee it jaarale ko ci euh, localité yi maire yi taxaw nañ ci niñ ci war a taxawee ak seen i pas ak seen i mën-mën ba lépp jaar ci yoon tey jii nga xam ne gunaas moo ci mujjee di jël te ay rafetaayam vraiment ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di remercier maire li mu mun ren yàlla na ko mun lu ko ëpp bu déwénee conseil yëpp kontaan nañ population bi kontaan na ndax taxawaay moo rafet kon loolu lañ am loolu li ñuy seede